billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi ziare mbooleem ñu fi teew ñëpp ci turu association de électricité de Touba tey jii ñu amoon liggéey bu am solo boo xam ne dañ koy ñëwoon ngir jëmmal ko ci jumaay Touba ji muy ñaareel yoon bi nga xamante ne si ñoo nañ ko ci jumaay Touba ngir liggéeyal ci sëñ Touba ngir ci bérébam bu sell bu màgg bi nga xamante ne si amul lu dul moom askan bi nga xamante ne si ci Touba yëpp di yëngu ci wàllum électricité boole woon doon benn tudd ci association de électricité de Touba ñëwoon fii comme niñ ko daan defee rek ñëw fii baaxu ko comme niñ ko daan defee rek mm, ci yeneen béréb yëpp te ji nag ñëwoon fii xam ne mooy béréb bi jumaay Touba muy ñaareel bi yoon kon daanaka wax ji xam naa ne du bari ndaxte xam naa ne kàddu yi soññee lay doon rek ak kàddu yu sant sant gi nag day jëm ci ñi nga xamante si ñoom lañ fekk muy daayira Muxaddamatul Xidma ngir yaatal gi ñuy yaatal ak gàttandu gi ñu gàttandu ak dalal gi ñu dalal ndaxte liggéey sëñ Tuubaa moom yombul bëgg koo liggéey la yomb na lool waaye mu liggéey loolu moo jafe te am nañ yaakaar ne bokk ñi nga xamante ne si ñoom la sëñ di liggéeyloo ba tax na tey ji bi ñu ñëwee fii ñu yaatal ñu lool bu baax a baax a lépp loo xamante ne ñu ngi ko doon soxla ci wàllum électricité ñu war ñu ko yaatal ñu ci ànd ceeg ñun ba am nañ yaakaar na lu ci bëree bëri sotti na ba xamante ne si tey ji mën naa ne bi ñu fi ñëwee ci subaak léegi facture yi xëy na bu ñu ko xaymoon mën naa ne xaw naa sakkal lool ba am nañ yaakaar ne toll na ci ay huit cent et quelques mille ngir ay prises yoo xam ne soxla woon nañ ko ak ay ventilateurs yu ñu doon nettoyé ak ay lampes yoo xam ne doon nañ ko nettoyé waat yooyu yëpp daal bi ñu ko calculé ci bagage yi nga xamante ni électricien de Touba association de électricien de jënd nañ ko mi ngi toll ci huit cent et quelques mille te loolu lépp nag askan yi nga xamante ni ñoo ñoo association de électricien de Touba ñoo ko dajale ci seen i mm, koom ak seen i ñaq donte bariwul ñu dajale ko ngir ñëw jaayante jënd ko ànd ak ñoom ci liggéey bi kon ginnaaw loolu dañuy sant waa association culturelle a baax a baax ci liggéey bi di leen wan di wax ne leen liggéey bi nag mën nañ ne day door a door ndaxte jumaa ji moom doonu luy àgg parce que bu doonu luy àgg nag def saa su nekk bu ñu fi ñëw fexe ba def fi loo xamante ne si keneen ku ñëw ñu fi def moom dañuy am yaakaar ne da dana baax lool macha allah ba tax na tey bi ñëwee parti bi nga xamante ne si jëloon nañu ko daal am nañ yaakaar ne keneen ku ñëw moom ci leneen ngay jublu waaye lii moom am nañ ci yaakaar baax a baax tey am nañ yaakaar ne sëñ bi noonu la ko bëgg ndaxte doonu loo xamante si kenn na koy def wala doonu loo xam dañ koy def mu jeex kon bu suñ ñëwee rek dañuy def li nga xamante ne si foofu la suñ doole yam wala foofu lañ toll ba keneen ku ñëw tamit tàmbalee foofu noonu ñu amoon jot li liggéey boobu noonu ba keroog suñ borom di def li nga xamante si moo di gën ci ñun kon sant nañ daayira Moukhaddamatoul Khidma bu baax a baax a baax ci dalal gi ak yaatal gi ak ci gàttandu gi yëpp ñu ngi lañ ci sant bu baax a baax a baax ci turu association du Hizbut Tarqiyyah Touba jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Euh, association bi nga xam ne moo lëkkale électricien yi Touba ñi nga am mbégte di leen nuyu bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ci turu daairat Muxaddamatul Xidma te sëriñ Afiya bu sa nekk ci bopp di leen nuyu itam ci turu kilifa yi nga xam ne ñoo ko teewee di njiiti daayira bi ak ñi nga xam ne itam nekkoon nañ fi ci bëccëg te génn ak mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk ci daayira bi yëpp. di yëkkati ay kàddu yu gàtt rek kàddu yi nag kàddu yu cant rek moo ciy jiitu ni nga xam ne noonu la ko mbokk mi waxee léegi cant gi am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem cant gi nag daanaka jërul sori ndax sant sa bopp rek li tax muy sant sa bopp mooy noonu ñëpp ay taalibe sëriñ Tuubaa lañu yoo xam ne sunu am-am bi gën a rëy mooy sëñ Tuubaa suñu yaakaar ji gën a rëy mooy sëñ suñu xemmemteef ji gën a rëy mooy liggéeyal Serigne Touba te xam nañ ne liggéeyal Serigne Touba itam pertement amu ca euh, moom la mu waxoon leer nañ bu leen ma gërëm gërëm leen lawbe bi yett ndab li bu leen ma xarabit kuy xarab na xarab lawbe bi yett ndab li waaye moom ku jël sa ndab raxas ko ba mu set nga andil ko ko taajal ko ko noo ko ko taajale rek noonu la koy duwele lim dul duy rek mooy ndab lu taq te jàpp naa ne yéen ñun ñi fi daje ñëpp am nañ rafet njort ji ne suñuy ndab set na wecc ëppante gi nag ci noonu la kenn ku nekk nu ndabam toll rek na lay feese waaye ndab yi moom du ñàkk mukk Sëriñ Tuubaa moom du ko ñuy dem ak yaakaar mukk di sooy yaakaar ju fa indi rek dana la ko fajal doomu aadama nag gis-gisam dafa gàtt xelam gàtt bu soxlaa tey jii am ndox dikk ñaan si ndox amul joxu joxuñ ko ndox day jàpp ne ñàkk na yàlla nag nekkul foofu yàlla moom day xool li gën ci yow mu defal la ko Sëriñ Tuubaa nag dafa jaxase yàlla ay mbir ba mbiram yépp di mbir yàlla moo tax boo ñëwee ci moom loo fu mën di wut si da nga ko am amin wa nag ñuy xool ndax yow la nga bëggoon moo gën ci nga am ko wala ndax dafa seet leneen lu gën ci yow mu defal la ko kon nag na seen xel dal ci xëy mii ngeen xëy tey ma xëy mu ngeen mës a xëy tey waaye xëy mii moom xëy mu sëñ Tuubaa nangu la ndax barab bii dafa nekk barab boo xam ne du kum neex nga liggéey fi ni ko mbokk mi waxee léegi bari na lool ñu fiy ñëw am yéene lool nga xam ne ñoom ci seen jëmm ba loo leen xoolee da xam ne ñii ñu fi am yéene lañ ñu am xemmemteef ci liggéey fi lañ ñu digge fi lu bari loo xam ne ni dañ koy man te yaakaar na itam suba rek dañuy jóg jëm ci waaye la koy gàllankoor ñoom sax duñ ko xam da ngay toog rek ba mu yàgg ñu man de amoon naa yéene defoon naa nii defoon naa naa jàppoon naa ne balaa nga ni mbaa loola nangam kon nag ku yàlla defal tawféex nga liggéey fi te Sëriñ Tuubaa waxoon ne sun borom nanga nga képp koo xam ne liggéey na ci liggéey bii li ki leen ko digal jéggal képp ko ci jàpp ak noom ci mën jàppe loola xam nañ ne lu nangu ba noppi la wax fir li man banaw bina ahar rafia wax fir li man amarahum bihi jamia waaye nag wali jamia man aanahum ala binaiha allazi bi fadlika antala loola képp koo xam ne participé na benn dërëm ci liggéey bii ngeen doon liggéey donte commerçant bii jaay la sax wàññi njëg gi ngir xam ne fii la jëm si waxuma sax ñi ko dajale waaye ki sax wàññi njëg gi ngir ne fii la jëm si sax wali jamia man aanahum joojee day dugg ci biir kon nag yéen yi nga xam ne yéen a jël seenu ñaq jël seen alal def ci liggéey bi na seen xel dal te ngeen xam ne def ngeen ko fu mat a def boo xam ne li ngeen daan jëf de lu mu baax baax xam naa ne jëf jëf gi ngeen jëf tey ji moo ko gën a baax jëf ji nag mooy seere boppam noonu ñëpp gisandoo nañ ko tey ji xëy si nañ fi ci suba xool bi ngeen di tàmbali ñëw nañ fi ci bëccëg gis leen nekkaat nañ fi ba léegi ñi bi ngeen di wàcc gis nañ li ngeen fi def lépp mboolem lu ñu leen wanoon loo xam ne nii lu war a lu war a am la defe ngeen ko defu leen ko rek jàll waaye da ngeen xool la ca gën la gën ca loola ngeen def ko yàgg nañ nag ci liggéey bi ndax barab boo fa defee ñaar fukki at ak juróom benn euh, yaakaar naa ne da nga fa xam dara li fi jaar ci ay liggéey bari na gis nañu nit niñ daan liggéeyee te yooyu ci ëpp yuñ daan yuñ daan fay lay doon laajte li nga xam ne ñoo ko daan defar suñu bopp itam coono yi ñu daan jànkoonteel ak liñ ci daan daj gis nañ ko waaye gis nañ nag liggéey bu professionnalisme professionnalisme bi nga xam ne seen liggéeyu tey bii wane na ko. waaye li muy nekk nekk liggéeyu professionnel nag yéen ji ngeen ci àndal daf ko ëpp doole yéen jooju nag sawar gi ngeen sawar ci liggéeyal sëñ Tuubaa moo ko wane euh, te ñëpp teg nañ seen bët kon nag euh, ñu ngi leen di sant bu baax waaye cant doomu aadama amul solo noonu duñu ci dara xanaa nag nekk nañ fi liggéey bi nekk ci suñuy loxo bu boobaa seere la ñuy doon ci képp koo xam ne ñëw nga jàpp ci fii nag niñ koy faral di waxee du leen ni kenn. lépp ñëpp lu ne ku ne ngi ci tax na muqaddamatul xidma dafa tàllal loxo ñëpp parce que yéen ñoom liggéey teeba ji nekk ak xéewal yi nekk ci liggéeyal Serigne Touba ñaane wu ko kenn waaye yeneen ko bokki taalibe bi yëpp ba ku ñëw te sellal fas na yéene ànd ak yéen noonu nag liñ gisagun ci yéen ba ngeen fi ñëwee tàmbali waxtaan wu njëkk ba te fekk nu fii ba léegi dara soppikoo ci mooy yar bi ngeen war a àndal te barab bi laaj ko gis nañ ko ci yéen teggin yi ngeen war a àndal te barab bi laaj ko gis nañ ko ci yéen war ma ji ngeen war a àndal te barab bi laaj gis nañ ko ci yéen waaye yéene ju rëy ji ak pas-pas bu sell bi nga xam ne am ngeen ko ci dem ci yendu ci barab bi ci suba ak léegi mbooloo mu toll nii yendu fi mu am ay ndaw am lu ne te kenn déggul coow ci suba léegi kenn déggul werante kenn déggul buru bi bu lay buy son buy sonle fu ñu noddee ñëpp ne tekk bañ julli ba noppi ñu delluwaat ci seen liggéey ndànk wax dëgg yàlla loolu mooy li nga xam ne moom lañ soxla ci barab bi kon nag ñoo ngi leen ci sant bu baax waaye ñi ngi beral nag cant mag ñi nga xam ne ñoo ànd ak yéen te nekk ci biir ñu ngi koy seetlu gis nañ ci ay mag ñoo xam ne wax dëgg yàlla euh, mënoon nañoo toog sax di joxañ waaye ci soow ba léegi gis nañ ni ñu ngi ànd ci liggéey bi sonn ci lool te euh, mel na ne buñ bu fekkonte ne lu baax dañu doy xëy na lu baax doyoon na ci ñoom ndax bañ juddoo ba léegi jàpp nañ ñu ngi ci ñu ngi sàkk lu baax waaye yéen ñi nga xam ne ay ndaw ngeen loolu da di won aw yoon wan leen ne lu baax du doy ndax e, ñaar rek moo fi nekk adduna ak alaxira adduna dafa am fu mu tàmbalee am fu mu yem mi ngi tàmbalee fi nit ki juddoo yem fi nit ki faatoo alaxira nag am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu ngi tàmbalee fi nit ki faatoo waaye yemul fenn te mboolem lu nit di jëfandikoo ci alaxira madul jeex ci àdduna mii di jeex la koy jëfandikoo la koy la koy koy faggoo te nun ñi ñëpp la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ñu bari ku ci xam sa maami maam bariwul maami maam moomee maamam maami maamam ba léegi mi ngi ci biir suuf lam fag woon moom lay dundee ba nga ni ndax jeexut ku ci xam dara ndimbalul yàlla ak yërmande yim rek moo moom lañ fay lañ fay yaakaar foo xam ne nag ad ñi nekk ci àdduna rek li ñuy dundaat sa ginnaaw ñoom liñ ciy faggu li muy mu bari bari bari bari bari ñu di ko dundee ci àdduna dana jeex yow nga ñu ñu ñëw ci àdduna fekk la foofa ba génn àdduna fekk la foofa seeni doom fekk ñëw àdduna fekk la foofa génn àdduna fekk la foofa te yow man xëy am exécut ba fay di am loola lu mat a fàggul la fàggul loola nag lii ci la bokk liggéey jaamu yàlla la danga nga ciy am yàlla ñu di la fay nga di ci am àdduna waaye nag li ñuy wax ma xitma ma mooy bépp liggéey boo xam ne danga koy def te amul li ñuy tuddee contrepartie bu ñu xam mooy doom li ngay da koy def te yàlla rek tax moom dafa am payug boppam payug boppam goo xam ne Sëriñ Tuubaa wax na ko ci Masaalikul Jinaan wax na ne ne buñ demee ba yawmal xiyaam ñëw taxaw ñu jël siraat gàcc ko ci kaw sawara jahannama nit ñëpp tiit jàq rët kenn tëlatul kenn nee na bu boobaa day am lu taxaw yuuxu ca kaw ne ana ñi daan def ma ana ñi daan liggéeyal yàlla nee na ñu daal di wuju te bu foofa nag fii mën nañoo woote comme neex nga wuyu waaye foofa bu ñu wootee ku bokkul ca ñañ woo du mën a wuyu nee ñu daal di wuyu bu ñu wuyoo yàlla ne leen yéen aco wuyu leen na ci lu dul benn coono amul benn jafe-jafe kenn du leen nattu kenn du leen isaab kenn du leen xool seen i mbir yéen daal dem leen rek àjjana foofa nag ñëpp dañ ko soxla waaye ñii ñoo koy am wa qiila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari wa kaabadal waral jawaa wal xumma naada munaadi ayna ahlul xidma ñooñu rek ay wuyu nag bu boobaa bu ko defee fa aja bu ñoom ñëpp dañu daal tontu ca saasa lu ñu leen di wax yuqal lahum umdul janna bi xayri mihnatin wa xayri fitna dem leen ajjuna ajjana yeen lu dul benn coono benn fitna du leen topp yeen ñuy jaar siraate ka kalankalange ka dagg ka daanoo ka drama ka dawa ka naawa ka def yëf yooyu yooyu loolu du leen ci fekk loolu nag lu mat a bàyyi xel la lu tuuti nga mën koo def amee ci lu baree baree baree bare baree dafa mat a bàyyi xel àdduna ñettamal nañu noonu ñëpp surtout ñun ndaw ñi bëgg-bëgg yi bari na lool fi ñuy xool sori na lool waaye àdduna waxoon naa léegi ci tàmbali bi ne dafa am fu mu tàmbalee am fu mu te loo fi am lu mu rëy rëy rëy rëy ak lu mu bari bari bari bari bari bari bari booy dugg ci bàmmeel da nga ko fi bàyyi as tiise su ndaw moo lay topp ya ca des lépp day des ginnaaw te tiise boobu sax mën naa bañ jóge sa alal man li gën a bari sax du jóge ci alal alal li la ca des ñeneen a koy jël jëriñoo ñooñe buñ ca jaamoo yàlla ñooy moom tiyaaba ja buñ ca mooyee yàlla ñu dumale ci yow mi ko fàggoon teg fi loola jërul yàq la nga xam ne mooy njariñul ëllëg la nga xam ne dañ koy jariñoo te jeex ba faw loola nag lii ngeen def tey seen kendalul tey jii ca loolee la bokk kon nag na ngeen sant yàlla bu baax te xam ne ka njëkk am xalaat bii de yéen ñëpp ameen ngeen ko njukkal waaye yéen ñii ko nangu itam seen xol bi ko bi ko nangu ak euh, seen yéene ji ngeen àndal ak seen pas-pas bi ngeen àndal ba ñëw fii lu rëy rëy la loo xam ne war ngeen koy suuxat bu baax ci seen i jëmm tey di ci gën a góorgóorlu bu baax te xam ne jafe na nag ndax liy yàq dafa bari boo jógee jëm ci lu baax saytaane fiir gu ne dana ko teg ci sa kanam dana la booleek ña ngay ja ña ngay ña ngay ña ngay war a dajal dana la gis loo ay gis aw giseen da ñàkk fay ren da nga yàq sa alal foofu sëñ bi xaalis bi ñuy jox sëñ bi nangam ak nangam dañ ko war a fay dañoo war a def nii dañoo war a def naa ñi fay def lii def laa waaye loolee ñuy jox sëñ bi ak ña ñuy jox naan ña fay def nii kenn ku nekk defalul kenn boppam lay defal Cheikh Mouhamadul Fadil daf daan wax ne kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def rek boppam kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu def boppam kon bul xool la ñuy jox sëñ bi bul xool ña fa nekk ña ngay def nangam wala ña ngi leen jox nangam yow kay lépp loo mën a def ci lu baax ak foo ko gisee rek demal def ko te xam ne darati bopp du mooy mbaggum boroom laa taziru waziratun wisra uxra kenn jë jëfi kenn de su ko teg ci kaw kenn ku def lu neen lu dul noona ci kaw kooka rek lay dal waaye nag safaan ba itam nag man amila saalihan fali nafsi ku jëf lu baax itam moom rek moo ko moom lay delloo jëf lu baax nag dafa sakkan ndax suñ boroom daf cee joxe ay misaal yu bari waxoon na ne ku jëf benn bu baax falahu asru amsaaliha loolu aw fayin la am na yitam bu mu fu mu waxee ne kamasali xabbatin an barat sab'an sanabila fii kulli sunbulatin mi'atu xabba kooku juróom-ñaar téeméer la yàlla nag jubluwut ne ab lim fukk wala lim juróom-ñaar téeméer dafa toll ne booy wax lo booy wax te bëgg wax ne nanga mu bari da ngay wax ne mat na fukk wala nga mën na téeméer wala nga mën na ay téeméer ci waxin woowu la ko waxee waaye loolu lépp des si des tudd ab lim waaye am na leneen lu ca tab loo xam ne moo gën a sakkan li amutub lim wallahu yudaa'ifu liman yasha yàlla nag am na ñoo xam ne moom du leen limal ay juróom-ñaar téeméeri ki fukk waaye day moo koy seet num mu ko neexee mu multiplier ko noonu ma yii ngeen di def nag ci li yàllay seet na ko neex mu multiplier ko ci ci lay doon yéene ji mu am itam mu yéenee hadiya itam yi dafa am mbir payeg boppam euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha ba mu yónnee Serigne Touba hadiya ju mag joojee ci njareem la ko suñ bokk na ci la ko Serigne Touba tontu mooy benn hadiya bu nekk des na ko faye lu toll ci fukki junni yoon ak ñaar te loolu mooy li ci gën a néew foo xam ne nag boo fa dugalee benn ñu fay la douze ñu multiplier ko par douze mille te douze mille yi mooy la ca gën a néew loolu kon man xam yéen ñëpp xam ngeen ne dugg na ci wallaahu yudaa'ifu liman yashaa jooje kon nag lii na ngeen ci gën a góorgóorlu bu baax te xam ne lii moom moom yàlla na yàlla yàlla rek buñ ci gis seen bopp waaw yàlla buñ ci gis seen bopp liggéey bi nag lu mu rëy rëy rëy liggéeyal yàlla nag lenn dong ko mën a yàq lenn képp mooy nga def ko ba noppi gis ko wala nga di ko geesu nanguwul geesu nanguwul gis loo def fàtte la nangu melal ne rek kuy ji fepp gerte wala fepp dugub boo dugal ci pax ba maasale ko noppi nga ci da nga koy wan gannaaw bàyyi koog yàlla yàllaa koy saxal génne ko meññeel ko loo fay defaat góob jariñoo ji kon jëf ju baax foo ko defee ba noppi fàtteel te romb ko te xalaat la ci nekk sa kanam fas yéene jëfaat yeneen jëf ju baax lii am na solo lool rëy na lool baax na lool waaye fàttee leen ko te xool li ci kanam te xam ne loola mooy lii leen di jariñ ñu ngi sant nag bu baax ci taxawaay bi di ñaan lépp lu ngeen fi def na ko sëriñ suñu borom nangu sëriñ Tuubaa fulal leen ko dencal leen ko mu bokk ci liggéey sëriñ yi nga xam ne njariñ lu ngeen fi gis ñu di ko jariñoo tey liggéey boobee moo ko waral sëriñ Tuubaa nag am na lu mu ñaanaloon ñi ko doon liggéeyal foofu la ñuy daaneele waxoon na ne képp ku koy liggéeyal yàlla na yàlla faj say aajo waqdi xawaaija allazina daamu fii xidmati wa hëb lahum maaraamu lépp luñ sakk àdduna ak àlaaxira nga defal leen ko boo xam ne nag boo ko defee suñ borom faj se ajo loo wut mu defal la ko waxoon it ne ñi nga xam ne dañoo sax ci di ko liggéeyal sax ci di ko liggéeyal suñ borom a nga leen di tabaxal ay njëndi ay kër ci digg aljanna mooy ne allazina saaramu xidmati wa lahumu diyaaru wastal janna yàlla nañ suñu borom boole ci loole ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen séntuwaat ci yeneen liggéey yi nga xam ne ni nga ko waxee léegi liggéey bi moom du jeex waxtu wu ne ñu ngi ci buñ demee noppaluwaat delluwaat ci fàggu lu lew luñ dundale njaboot gi ba amaat beneen occasion rek ñu dajawaat fi seetaat leneen lu gën a jàmp ci liggéey bi ñu ànd ko niñ ko yéenee suñu bopp rek noonu lañ leen ko yéenee tey ku fi jóge jàpp naa ne da yëg ci sa bopp ak yokkute goo xam ne da xam ne liggéey bii nga doon liggéeyal Sëriñ Tuubaa moo lañ ko defal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.